يا الله يا من لا إله غيره da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund jàngoro rab ak cat ba ci sa tëju ci sa wàllu wërsëg lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas kon nag bul xaddi benn yoon ndax fa xam-xam ne woon ba tey jugu fa dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate di boroom xam-xam bu mag ci wàllu lasraar xaar bu leer wax la sa passé ak sa tolluwaay ba nga teg sa bët loolu moom ñëpp mànkoo nañ ñi amu ci morom ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy ak ñi tukki bitim réew te ay këyit leen lool daw leen seeti sëriñ Mohamed Jaxate seen aajo yëpp faju ngir jokkoo ak moom wootal ci numéro téléphone bi 77 334 83 80. ak Serigne Mohamed Diakhaté aajo yëpp ay faju dama ni la nga nekk nit doo day pasi doo puubu mbaam nit nga neexal sa bopp nit kaa bi bu ma si duggee léegi mu jeex ndax sa dossier dama ko téye nii toog ci damaa bëggul mu ñaaw nag sa dossier almadi kër ga nga dëkkoon tuxu fa wàcc fa ay xajaki ay gàllaa bopp xajaki ay gàllaajaki photo lépp ngeen man sa dossier boobu tubaab ba moom kër ga may ko doomam dossier boobu lépp ngi sama digg loxo rek leel yoruloo fi dërëm sa làmmiñ ngay mottalu ko ak sénégalais yi nga mun a ndax nga xamante ne ko am am da leen a tiital koppar da leen a tiital ñu ko am ak ku amul yow nag bu la neexee xoolal moomal àdduna bi moom lépp moomal lépp ngay jël sa Range ba may yéeg sama taxi ba sama kalandoo fu ñu dajee ma lay ñaf ñafee du mas sa morom ger bi nag mu ngi doog a commencé cas bi nañ ci ñëw ma xool cas bi sax léegi na neex tubaarkàlla macha allah aw ma dara nag ndax du ma wër di duul di jël ay kër jàmbur di fay ay 1 million par mois di li yoral wër borom kër ga 3 mois duma ko fay di tuxu wacc fa ay bopp euh, bopp xaj wacc fa samay photo yow sa dossier mu ngi ci man yow dañ lay nettali samay dossier mais man sa dossier carrément moom laa gis ma ma toog rek nag sama jàmm ji bëri lool li ma xam a bëri ci digg réew mi du da bëgg nañ ci dem nag nañ ci dem man daw ma saalo yaay ndeer man duma sa ñii ngay waxal ñu naan nii de man kaa xoola kaa par kaa loo indi ñu indi leneen daw ma saalo yaay ndeer que ça soit très clair nag sa làmmiñ ngay mottalu koo am naa lii am naa lee ñun mottalu koo ñu dërëm amuñu dara ceeb keccax la ñuy xëy di añee moom sombi la ñuy reeree te fu waay ñun xam nañ sa dossier yépp de sa dof dof lu boobu jaay ko ñeneen sa dossier yëpp lañ xam toog ci bul ñu gis nag ñuy ñuy woote jàmm rek ba nga foog ne leneen la ñoo la gën a pare foofe ñoo la gën a pare fuuf yow sax xam nga ay toog di ñoddi ay am naa lii am naa lee te foo dëkk doo fay bañ génnee la yooyu la sonal man yooyu sonalu ma man sombi ma noos euh, euh, poñse ma noos mburu fonde ma noos man yi la sonal yow man sonalu ma waaw kooba bu salte nag buñ koy wax dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa tax lii woo waral nag premier jour ba nga bindee sa sinap naan xale bi dama koo bëgg na ñëw ma may ko enveloppe ñu bëri ne ma bul dem ñi ma waxoon bul dem ñëpp tey jii laay doog a xamee lu tax ñu waxoon ma bul dem te dinaa leen jërëjëf parce que rëccuuma lu tax ñëwuma ndax sa un bu ma ko lekkoon nga boole ma si sa ñooñu man nag maa gën a pare sa ñii man ak yow xoolal chaque jour dangay wax jox ma ma wax delloo la boo loo indi rek xoolal loo bax rek ñu. da ngay yam nag te nga réglé te xam ne simple caga kase nga. simple caga buy wër di toog di duul am naa lii def naa lee def naa lee ñun li ñu am ak li ñu ñàkk kenn xamu ko ndax soxlaw ñoo wax ni lii la am pour nit ñi bëgguñu soxlaw ñoo wane ni que lii la ñu yor pour nit ñi bëgguñu ñun nit ñee ñu dugal suñu biir xol yi buzz ñun ba ñuy am buzz boobu du tey ñun ba ñuy am buzz yaa ñu doon ñaan pour gis ñu pour am buzz ñun ba ñuy am buzz du tey soxlaw ñu buzz c'est parce que rang buzz kay eh réew nañ ci dem